Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je voudrais vous raconter une histoire, notre histoire, l'histoire de preux chevaliers, de guerriers de lumière et de femmes de vertu qui ont façonné chaque aspect de notre substrat culturel et fondent notre comment vouloir vivre ensemble. Je voudrais vous parler de ces hommes et de ces femmes, en partant par Tcherno Suleiman Bal, Elaj Omar Foutuital, Sidi Haj Maliksi, Cheikh Bamba, Maulana Cheikh Ibrahim, et de tant d'autres, de femmes comme Yassine Boubou, Aline Soutaye, qui ont donné leur sang, alors que nous n'étions même pas encore ce pays que nous sommes aujourd'hui qui ont donné leur connaissance, leur idéal de vie. Et c'est ça qui fait le Sénégal. Ce que je rek dama sentiment nous sommes ak nous ñu ni kanam yi Nous nous sommes ba bi bi suñu réew mii réewu par par loolu lañ nekk léegi ku ànd ak man yaa fi gën loo wax noonu la loo def noonu la te loo mën ci def dara du la ci fekk ku àndul ak man amuloo benn droit nekkoo ci dëgg te loo yëkkati mu doon musiba jëm ci yow ñu war a doon ay mukallaf mujje di dof doflu ku nekk naan da ngay dof doflu maa la gën a dof et ce pays là a besoin des énergies il a besoin de ce que nous avons de plus cher parce que tal wala fa entre ñun acteurs politiques autour de la maison il y a 12, 15, 20 autres maisons qui ne sont ni d'est ni d'ouest et pourtant si mi ay gone fa nek ay fa nek ay fa monsieur le président de la république maa ngi ñaan yàlla liggéeyu rafet yi nga def yal na ko suñu borom gën a dëgëral mais jamono yii ñu toll nii il faut que ñu wax la li ay di jàmbat te di naqari nit ñi ci réew mi yépp ndax jàpp nañ ni feneen fu ñu ko mënti waxee amul sens fii lañ ko mën a waxee nopp yi ko war a dégg dégg ko ñu àndandoo sàkk si ay pexe pour Sénégal génn ci gute gii mu nekk nii man jàpp naa ni bare na. ci réew mi ñoo xamee ni ay ñu ngi yëngatu te nekkuñu fii bu ñu jàppee na ñun ñii nekk fii rek ñun ñooy réew mi suñu gis-gis gàtt na trop te yow président de la république yilifoo ñi nga woo ñu ne la naam ñëw nañu ñi ñëwul tamit gàntal ak ñi bañ ak ñi féttéerlu ñoom ñëpp ci sa njaboot la ñu bokk yow yaa war a def lu war a tax jàmm dellusi si biir réew mi jàmm nag dafa am njëg njëg li njëkk li mooy dëgg ñaareelu njëg li mooy yow mi koy woote nga wone ko jëfe ko seqi tànk dellu gannaaw wax nañ fi léegi nu lu ëpp ñeenti ñeenti téeméeri doomu aadama ñu ngi ci biir kaso bi liberté provisoire a ngi fi leneen a ngi fi leneen a ngi fi te yooyu yëpp war nañoo góor góorgóorlu ba bu ñu fi jógee tey jii mu doon loo xamee ni di nga fi génn ay dogal yoo xamee ni dina may ñi nga xamee ne dañoo bëgg jàmm sax si réew mi ay argument yu dëgër ñi nga xamé ni ab bëgguñoo jàmm sax ci dëkk bi ñu bañati am ben argument bu ñuy démé dañu wara a liggéey suñu réew et monsieur le président de la république il y a beaucoup de violence que nous devrons faire sur nous-mêmes pour l'imposer aux autres et taxaw jënti réew mi mu jëm sa kanam dialogue yi bare na presque résultat yëpp taxaw na man japp naa ni assemblée bi ay décision la war a doon décision jëm ci bulletin unique décision de ci réforme L30 L29 L30 L57 décision de ci nan la ñu voter décision jëm ci processus électoral décision fexe ba képp koo xamee ne bëgg nga bokk ci élection yi te méngoog li nga xamee ne moo war tax nga bok ci nga bok ci te kenn bañ la bu ndoxatal ñu bañ discriminer kenn parce que à la fin c'est le Sénégal qui doit gagner kenn fi momul réew mi kenn moomu ko te kenn en commençant par le président de la république malgré les qu'il fi def yëpp tojogul réew mi a tax kenn fi et je pense que chacun d'entre nous doit se regarder les yeux dans les yeux et se regarder par rapport ak acte yu ñuy def ak wax yu ñuy def réewu xam-xam la yor réewu xam-xam yor jukko la a yor nan lañu nous sagane là où l'argument doit privilégier là où les règles doivent être respectées là où les sénégalais doivent être sur le même pied d'égalité nous diverger diverger ba nga xamé ni nangootuñu sax kenn wax et pourtant on est en état de droit et on proclame qu'on est une démocratie mûre ce pays là nous devons le construire ensemble nous l'avons pris de nos aînés et nous devons le transmettre à nos enfants à ce rythme là le pétrole comme toute autre richesse risque d'être une malédiction pour nous alors que nous devrons les utiliser pour que jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkk bi tartar yuy nekk ñu teggi leen ko bu ñu bolé boolee seen tartar ak seen jafe-jafe ci wëlbatiku nag di taal suñuy kër di taal seeni kër bolé ko ak jafe-jafe fitna bu dul c'est une double peine que les Sénégalais ne méritent pas. je pense que je me suis bien fait comprendre maa ngi jéggalu si ñëpp nag yéen rek mooy Sénégal jëm sa kanam te Sénégal googu benn bopp la am si jusqu'à preuve du contraire c'est vous monsieur le président de la République du keneen. yow yaa ñu war a jiite yaa ñu war a ñoddi bañ a xool sa bopp xool sa cër ndax soo wàccee lépp daal di soppeeku ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ñaari mbir nee na waxta si mu bi dafa wax ni benn boo buggee jiite say nawle danga nga war a góorgóorlu ba nit ñi duñu ragal sa loxo duñu ragal sa làmmiñ loo am jox leen te lu ñu am nga bàyyi ak ñoom mu teg si ni wa axrinaa yaa rabbanaa bil xitma lil musulmans abadan wa rahma dañu wara taxaw pour liggéeyal sénégalais nous devons être tous des soldats de ce pays en dehors de nos divergences liguer pour réew djem karam parce qu'il y a suffisamment d'énergie suffisamment d'intelligence suffisamment de bonne volonté pour que ñu tabax Sénégal bi ni gërëm maa ngi di di sant euh, Cheikh Bamba